fa ñu may lu ko jar wan ñu mbir mu doy waar bàyyi basiiru damane moo fi dindi am xaar fa ñu may lu ko wan ñu mbir mu doy waar bàyyi basiiru damane moo fi dindi am xaar bañ bëggee texe ñun yàlla may ñu faaroo daf ko muy suñu mut léegi nag euh, ñu waa nuju baaw ñoo leen di nuyu nuyoo gi ñu ngi koy teg ci loxo borom dëkk ak imaam ñu jottalil ñu ko waa dëkk bi yépp ak waa gox bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax lii nag moom euh, dañoo gis Hadouna ni muy doxee rek ñu ànd ci ak ñoom te bëgg li ñuy jox alaaji Basiiru moo ñu jox nuju baaw ñu jàpp ci nee nañu ku ci jàpp nag doo tardé looloo tax ñu téye ci da ci ñaq da ci boole doomu aadama yi léegi nag léegi nag ñu ngi ñaanal gune yi yàlla jëmle leen kanam ñaanal mag ñi ñu gudd fan ñoomi itamit yàgg fi lool te wér te dañu ñaanal ñii de nag ñoom ñoom it dañoo bokk bëgg ñu bokk ci ñun dañu ñaax ndax ku de jéem managoo duñ la baxee sa bopp gune yi nag dama bëgg ngeen dimbale ma ci ñoom bu baax a baax gune yi ndakaaru yi ak gune dëkk bi ak waa Espagne yi sa que biñ ñëwee ñun dañoo topp ci suñ kaw te fakkatalu ñu ñu ngi bokk ñun suñ liggéey bi te waxuñu ci lenn lu ñuy jaaxal mbaa lu ñuy mer ñu de bodd de dem léegi nag dañoo bëgg ngeen ñaanal leen ñoom ñëpp kenn ku ci ne lam bëgg yàlla may ko ko ndax ci yoonu yàlla ci lañ ne jamono bu dee dox da ngay doxaan ak moom bu taxawé nga taxaw way fimna ni jamono ba ngee dox lol alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim an'amta alayhim ghayril maghdubi bismillahir rahmanir rahim assalamu ñu ngi leen di nuyu yéen waa dëkk bi di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di nuyu waa daayira bi di batalee ci président bi ba ci ci gën a doon xale ñu leen di nuyu yéen ñëpp bàyyiwuñ kenn xanaa dañuy gàttal rek ndax heure bi jot na ndax tamit suñ koy arabal noonu dañuy gàttal rek eh, comme suñuy kilifa yi wax nañ daanaka ñun amatuñ ci wax ndax ñun suñu wax moom balay mën a kii daanaka guddi waaye nag comme jox nañ ñu ah dañuy gërëm rek ak sant ñu ngi gërëm yéen yi nga xam ne yéen Dakar di ñuy jàppale ci bés bi di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk Espagne ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ndax nyong ci def seen loxo di gërëm waa dëkk bi nga xam ne tamit ñoom ñoom ñoo bokk dëkk bi tamit fa tabaaraka la ñoom def nañ ci seen xalal def ci seen doole ñëw teew di ñu jàppale ci mbir mi ndax lii pas-pas rek moo koy doxal kon li may dénk ndaw ñi mooy nañ am pas-pas ci lii lii bu yàgg ci dëkk bi rek xale yi ñoom ñoo koy avancé loo ndax ne nañ lu baax moom buy saxee ci dëkk ndaw ña ñoo ci jàppale mag ña waaye pox yi bu saxee ci dëkk mag ñaa sa jàppale xale ya kon ñu ngi jéggalu bu baax te xam ne lii suñu warugar la ñun ñoo war a defar dëkk bi ñun ñoo war a dëkk bu taaroo ñun ñoo ko taaral wax dëgg yàlla ñun de wàll bi ñu féete ñu ngi ciy bay suñu waar manuñ nag amuñ waaye nag ñu ngi jéem ba tax na fi nga xam ne ni ci xale yi ñu toll ñu fi jàng alxuraan ñun ci loolu lañuy yëngu ba tabarakallah dara nekku ci nag waaye nag ñu ngi ciy góorgóorlu di sant yàlla kon su ko defee ni nga xam ne ni yéen yéen xale yi na ngeen góorlu ndax xale yi fu mu ne nii yéen ñoom ñooy yore njaboot gi ñu ne fexe leen ngeen dugal seen doom yi ñuy jàng alxuraan ndax kaamil yi biñ ko fi tasee ñu ne ko jàng ñun ñu ko doon jàng néewoon nañ lool loolu ñu bëri wax nañ ko te loolu avancé lul dëkk ndax jàkk ji ñuy tabax nii xam-xam rek moo koy doxal bu xam-xam amul du sotti. kon nañu fexe jàngaloo ndaw yi ñu am xam-xam bu ko defee lii mën a continuer te lii tamit ñu fexe góorgóorlu di di jéem a fóot xol ñu nekk benn ndax lii foog xol yi ànd nekk benn bu ko defee rek liñ bëgg yàlla mën nañ cee dimbale euh, wax bi daanaka ba guddi na fa tabaraka asalaamaaleykum wa rahmatullah ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew